ci li ci gën a fës législative 2022 yeewi askan wi mel ni rek jamono ji xaw naa jaxasoo ndax nag ay membre yu boobule coalition yoo xamante ne toll nañ ci fukki formation politique ñu ngi nag lu doxalin bi ñoom nag li ñuy tuumaal moo di ñeent ñi nga xamante ne ñoo ko jiite manigance ndax jàpp nañu ñoom ci seen bopp rek ñoo jël rang yu yu njëkk yi ci liste d'investiture yi fàtte leen ci ginnaaw arrêté maître Ousmane Ngom Ligue sénégalaise bi xeex ak yelleefu doomu aadama ak Amnesty section Sénégal Sénégal di exiger rek ñu boobu le ndogal bu CEDEAO ci dakkal loolu di arrêté Ousmane Gom ci seen janoog taskatu xibaar yi ñaari organisation yooyu lay fas yéene nañu saisirat cour bi ngir rek ñu dakkal boobule ndogal wala sax su fekkee ni dañ ko fas yéene wéyale ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru bitim réew lay doon nes ñu faram fàccal leen Safietou Ba Ndiaye euh, ci micro bi Chimère Diop euh, ci xarale gi ñu joore yi les xibaar ak coalition Yewwi Askan Wi mi nga xamante ni rek jamono ji mel ni yëngatu na ginnaaw rek euh, ay maire wala ay frustration yu am ci investiture u législative yi ndax nag unité maanaam daal booloo nekk benn bi ñu doon rek fësal boobaak léegi mu mel ni rek mujj naa yàqu ndax jamono ji rek am na ñoo xamante ni ñu ngi wone seenu maire wala seen ñàkk ànd toll nañ ci fukki formation politique mesure boobu ci boot bootu ci boobu les coalition li ñuy nakarlu moo di rek li ñu jàppee lobby yi ngu ñeenti parti politique yoo xamante ne bokk na ci Pastef taxawu Sénégal pur yi nga xamante ne jàpp nañu ñoom ci seen bopp rek ñoo jiitee jël poste yu baaxi ci liste yi fàtte ñeneen yi nga xamante ne rek ñoo sosondoo boobu le coalition ci seen janook taskatu xibaar yi yooyu les formations politiques ñu ngi euh, tuumaal ñeent ñooñu nga xamante ne wala sax ñi jiite euh, boobu les coalition ne dañuy euh, violer déggoo xëccoo bi nga xamante ne rek amoon na euh, ci wala sax charte yeewi askan wi bi nga xamante ne rek xaati moon nañ ko ci bi ñuy euh, taxawal boobule coalition compte rendu nan ko Bakayoko. doxalin bi ni mel nag li ko tax a jóg du lenn lu mooy leeral askan wi Abdou Karim Fall di kenn ki wax ci seen tur. dañoo waxoon ne coalition bi ku nekk da nga ci gis sa bopp. waaye li ñu seetlu mooy ñetti parti ñoo ko aakimoo. ñëpp genn wàllu coalition bi tey d'accorduñ ci li ñu def. boo ci biir coalition Yewwi Askan Wi aussi yow waroo jiital sa intérêt parti wala sa intérêt copain wala sa intérêt copine bàyyi intérêt général bi te loolu lañ seetlu ci Yewwi Askan Wi ñetti parti ñoo séddoo département yépp ñoo séddoo liste nationale bi position yu baax yépp bàyyi yeneen parti yi nga xam ne ñoo bokk Yewwi Askan Wi bu ñu sukkandikoo ci yile formation politique bokk ci Yewwi Askan Wi tànneef bi ñu def ci investiture yi ñeel élection législative yi dafa salfaañe accord cadre ak charte bi tënk coalition bi Aminata Lo Dieng liñ ci njëkk a seetlu quatre partis de quatre à cinq personnes ñuy diriger ay partis ñoo accaparé wu de l'appareil de Yewwi Askan Wi au détriment de tous les partis signataires jalgati yoon ba nga xamante ne moom la ñu tëraloon muy charte ci seen janoog taskatu xibaar yi yële fukki formation politique yi naan tey la ñu gën a des ci biir Yewwi Askan Wi ne li ñuy sàkk mooy ñu jox leen cër gi ñu yellool la Nanko Bakayoko membre conférence des leaders bu yeewi askan wi nag di tuumaal ki nga xamante ne moo di Khalifa Ababacar Sall jàpp ni rek moom mooy responsable bu njëkk bu boobule crise nga xamante ne moo lëmbee jamono ji seen coalition boobule ñuy tuumaal itam procédure antidémocratique ak ñàkk transparence rek bi ñu nemmeeku ci seen po doxalin euh, yooyu les leaders u parti nag jàpp ni Khalifa Sall li ko soxal du lenn du dul rek ay calcul politique ngir Tollo Dieng ñu teewlu ay kàddoom ci micro. Khalifa Sall mi président de la conférence des leaders. du candidat. ñu jox ko mandat pour mu investir. monsieur Khalifa Sall. omnibulé par des calculs politiques parce que dañoo jëm. 2024 désir. ardent de s'accaparer de notre appareil mu jël liste bi boo ko xoolee au niveau national agencé pur taxawu Pastef première position jël leader yi nga xam ne ay góor lañu mottalee ñu liste national monsieur Khalifa Sall président de la conférence des leaders informé wuñu mais am nañ information que département yépp wallu la Pastef ak taxaw kon léegi ñun lan moo nekk suñu taxawaay ci biir Yewwi Askan Wi on n'est pas là pour faire de la cosmétique sorti euh, ñooñu ñu jàppee ay frustré coalition Yewwi Askan Wi ku ci mel ni Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy ak ñeneen dafa di rek li nga xamante ne moo gën a fës ci euh, mbir mi ndax nag ñàkk démocratie considération ak ñàkk waxtaan moo di réalité bi nga xamante ne rek moom la ñuy nemmeeku euh, ci formation politique wala coalition yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal ay nit yoo xamante ne tout le temps dañuy rek aspirer li nga xamante ni moo di rupture maanaam dàpp lu soppi doxalin waaye mel ni. yi amul lenn lu ñuy euh, fësal ci euh, loolu ci seen pour doxalin euh, tax nag ba askan wi ci seen bopp am loo xamante ne xëy na am na lu leen ci metti ñu teelu ci loolu commentaire boo xamante ne Ndeye Dumé Ndaw moo ko def. ni ñu defaree list yi amul benn waxtaan bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Bamba Dièye nekk président parti FSD/BJ ñaawlu moom ak ay ñoñam yi nga xam ne nag dañoo mere Khalifa sàll ak ñi bokk ci yeewi askan wi pour gannaaw nañu doxalee ci investiture yi loolu nag li muy wane rek mooy crise bu yàgg am ci biir coalition bi depuis bañ ko taxawalee te moo ne day président Bougane Gueye Dany artu woon na ndax bi mu waxee ci mbirum couleur wax ñàkkum considération ak ñàkku concertation ñu bëri comprendre luñ ko woon waaye tey coowu couleur yooyu dafa indiwaat couleuru crise bi kon mu mel ni am na dëgg tey beneen problème a ngi nii député Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké nekk président mouvement nekkal fi askan wi ñëpp dañ ko xam ci opposition bi mu taxawal leen fi barki Demba Ndiaye bi mu bëggee dugg yeewi askan wi bokk ak ñoom alliance ci élection législative yi dañ ko ni du ci dal ndax nag da nga yëkkati woon ay kaddu teg ko ci euh, kaw Cheikh Issa Sall nekk njiitu PUR nga xam ne ñoom it dañu am veto euh, ci biir coalition boobu nga xam ne nag dañ fa nekk membre fondateur lool it nekk beneen firnde bu leer buy wone ñàkkum démocratie ak jafe-jafe yu bëri yu am ci boobule coalition. kon tey ñuy samp ci démarche coalition bi nga xam ne ñu bëri ci ay hommes politiques bokkuñu fu ñu jógee te saa su nekk ñoom dañuy wax ni dañu bëgg changement de comportement ak moralisation vie politique ndax loolu ñuy wax ñoom ñi ngi koy jëfee ndax li ñu gis ci investiture yi mel na ni tey itam ñuy gis ci biir doxalinu réew mi kon mu mel ni culture politique nag nekkagul réalité fii ki Sénégal ndax fondement wu ànd dafay lalu ci démocratie waaye fii ki Sénégal nag malheureusement concept boobu politique yi dañu koy jaay moo xam opposition wala pouvoir waaye mel na ni gëmuñu ko loolu nag askan wi rek ñoom ñoo ciy loru ba tax ñu war ubbi seen bët bu baax baax Ndeye Dime beneen jafe-jafe ci beneenub coalition moo di rek liste coalition Benno Bokk Yaakaar euh, bu étendue du territoire national boo moyul rek euh, dinañ ko invalider suñu sukkandikoo ci ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum euh, élection ndax nag Benno dafa dépassé limu parrain yi nga xamante ne rek moom la waroon joxe nu ñu mel nag ñu jàppee ko violation texte légaux ak réglementaires yi tey ji nag liste Yewwi Askan Wi bu Dakar itam su moyul dinañ ko for clore kon nag jàpp nañ ni bu benn Benno Bokk Yaakaar itam ñu ngi xaaran ji eh, lu ni mel Fatou Abdou Ndiaye Sénégal ndax dafa war a bàyyi démocratie bi ay erreur yu ñu mën a daal di saytu daal di koy nësaxal ay coalition ne yeewi askan wi wala benn bokk yaakaar ndax dañoo war a toog bañ a jox cër loi bi ñeel wàllu élection ay laaj yu samp moo ne arrêté bu ministère bu intérieur bi leer na naññi lu jëm ci élection législative yi dafa am benn plafond ak benn plancher boo xam ne dañu ko war a jox cër ci leeral benn parti wala coalition warte daal di dépassé la ñu laaj ci wàllu ko parrain mu toll ci 53 537 coalition bennoo bokk yaakaar ñuy xibaar ne dafa weesu la nga xam ne moom la waroon déposé ne mu joxe mi ngi toll ci bu nu sukkandikoo ci Benoît Sambou mi nga xam ne moom moo ko fësal ci page Facebook am loolu nag tax ba ay constitutionnaliste tey jii ku ci mel ne Ngouda Mboup ak Seybani di fàttali jurisprudence Malick Gakou wax ne sax conseil constitutionnel dafa war invalider liste yu coalition beneen boo xam ne it nañu ko wax mooy liste bu yeewi askan wi ci Ndakaaru naka la coalition présenté ab liste boo xam ne joxul cër parité mu mel ne tey jii direction générale des élections moo war a jël responsabilité ne liste yeewi ci ndakaaru bu fekkee danoo wax ne mënta bokk beneen liste it ña ngay lam-laamee ne du a bokk ci bii élection ci am lu leer ay fan yu jëm bu fekkee yegg nañu ci la nga xam ne moo jëm ci validation dossier yu candidat yi nga xam ne dañu leen fi taxawal jëm ci rek élection législative Fatou Abdou Ndiaye commission électorale nationale autonome di rafetlu ba fi mu toll ni rek doxalin bi nga ne wala sax ni ñuy déroulé opération dépôt de dossier wu parrainage wu coalition yi parti yi waaye itam entité de compétition yi Sénat nag jot a dénoncé yenn rek rek yu mu nemmeeku ci acteur politique yi nga xamante ne euh, léeg-léeg ñu faussé li nga xamante ne moo di jeu démocratique bi commission bi di nakarlu itam yenn déclaration ak violence yu ñu nemmeeku ci euh, réseaux sociaux yi ñeel rek publication liste yi huit heures euh, tegal na ñeent fukki simili fii ci Dakar yéen a ngi FM Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak Amnesty International section Sénégal di sàkku rek ci état wu Sénégal mu appliqué décision bu cour de justice bu CEDEAO euh, ci abrogé arrêté Ousmane Ngom yooyu les organisations si seen janoog taskatu xibaar yi démb nag euh, fas yéene ñu saisirat boobu les cours su fekkee ni dañu wéy rek ne duñu respecté euh, boobu le ndogal nga xamante ne rek jëloon nañ ko Abdoul Aziz Sow baax sàlloog càkkutéefu cour justice de la CEDEAO jëlee fii arrêté Ousmane Ngom bile lii mooy bëgg-bëgg Amnesty International section Sénégal ak waa LSDH. dogal bi nee na euh, arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne 2011 lañ ko jëloon. dafay violé ak ak ak yeleefu askanu Sénégal. pour ñu apprécier ko nu mu gën a gaawee. mettre en œuvre décision mu daal di ko abroger nu mu gën a gaawee. arrêté boobule day tere bépp manifestation politique ci centre ville li leen di salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yi rawatina ci jamono jii ñuy waajal législative yi le. arrêté bi day violer de façon flagrante le code électoral le code électoral nee na pendant période campagne électorale képp kuy parti wala coalition parti wala candidat am nga droit dem fépp ci territoire Sénégal def fa campagne. bu nguur gi sàlluwut ak lu ni mel Seydi Gassama ak i ñoñam ñu ne dinañu delluwaat ci kur googee toppaat nguuru Sénégal ci beneen poñ yëgal ko ne ndogal bi nga def état appliqué wul booba tribunal bi dina jëlaat beneen ndogal boo xam ne ay daan yu métti lay tekki kaw état Sénégal cour de justice bu CEDEAO mu ngi sàkku ci nguur gi mu niilal arrêté Ousmane Ngom bile laata fanweeru fan ci weeru juin ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci wàllum wérgu yaram jiite na rek ay travaux démb bu revue conjointe plan national bu développement sanitaire PNDS 2022 moom nag rafetlu na niveau performance su système de santé bi mu jàpp ni rek egg na ci lu toll si juróom-ñaar fukk boo jëlee téeméer bu nekk donte Covid 19 bi jaar na fi ak i jafe-jafeem Abdoulaye Diouf Sarr jot na itam fàttali jéego yi nga xamante ne nguuru Sénégal jot na kaa def ci at yi weesu ngir rek gën a dëgëral euh, plateau technique. structure au sanitaire yi ñu teewlu ay kàddoom ci euh, micro ajaratu ay chening seetlu nañ ne am na jéego yu am solo yoo xamante ne def nañ ko si secteur bi bu ñu doon xaar fukk mën nañ wax ne juróom-ñaar yi def nañ ko euh, nañ junne ak ñeenti téeméeru personnel de santé et action sociale 2019 rek si ñetti at jël nañ presque lu mat ñeenti junne agent yoo xamante ne daf ñëw yokku si personnel de santé et action sociale def nañ si ay jéego yu mag si pyramide sanitaire bi def nañ aussi ñeenti centre de dialyse yu bees ñu tabax def nañ aussi ñeenti centre de dialyse yu bees ñu tabax mais indi nañ aussi partout si réew mi augmentation la ñuy wax plateau médical ay appareil mammographie ñu def ko si région yëpp appareil scanner yoo xamante ne presque si région yëpp def nañ ko fa kon taw mooy effectivement centre de santé ak poste de santé yi xamante ne vraiment amélioré amélioré nañ leen constamment te li rek mbirum liir bi nga xamante ne moo faatu ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ak nag retrait plainte euh, wayjuru boobule euh, bébé Alassane Diallo moom ci boppam nag ñëwaat na ci li raison yi tax moom ci boppam mu dellu ginnaaw ci plainte bi mu fësal ni rek xalif général bu Medina Baye bokk na ci ñi tax rek mu dellu ginnaaw ci ndogal bi mu jëloon tax rek amaana ba aide infirmière bi ama li nga xamante ni moo di liberté provisoire Aliou Kane jot naa jokkook moom ñu teewlu teewlu way juru liir bi nga xamante ne faatu na ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack moom mu ngi wax lu tax mu retiré plainte am Alassane Diallo. waaw man daal li tax ma retiré ko. samay mbokk ak samay am di ak samay dëkkandoo kenn ci sax bu xalifatu euh, Mirina Baye Mahamad Mahi Ibrahima Niass jëba nekk ay ndaw te man fu nii foofu laa jàngee école boobu foofu samay ba am baccalauréat kon ñooñu bu ñu ñëwee loolu ñu ñu eh, won yàlla dellu ci yàlla ma xam ne yàlla moo ci ñàkk ma naa yàlla rek wax yooyu rek yoo xam ne gilaas kon nga xam ne jullit laa ci laa man damay rek moom daal man daal jëfal naa ko yoon lu daal rek moom la waaye man moom man moom daal moo ko man topp moo ko dara ñàkk naa ñàkk naa lettre de désistement bi nag dana am ay jeexital ci procès bi nga xamante ne ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu ne lañ ko tënk waaye nag li am ba des mooy donte plainte bi daal nañ koy retirer procureur di maître des poursuites moom mooy jël ndogal ndax plainte boobule dana am yenn xeeti jeexital ci procès bi am déet Aliou Kane Kaolack Zik Aliou Kane ñu jugee Kaolack utali Thiès foofu nag mu mel ni xale yi nekk ci mbedd bi bëri na loolu loolu di seddu maire bu commune bu Thiès est mu di loo xamante ne jàpp na ni faw ñu jug si ndax nag am na lu bëri lu muy gàllankoor kon nag far nañ fexe itam ba dellu ci valeur yi nga xamante ne moom lañ doon bu fësal boobaak léegi ngi xeex boobu les phénomènes coordination régionale bu euh, ndongo yi moom ci boppam jot naa organiser euh, benn bés boo xamante ne rek daf ko jagleel xale yi Pierre situation xale yi nekk ci mbedd bi daanaka lu jéggi dayaloo suñu sukkandikoo ci meeru Thiès Est faw ñu song mbir mi daal dénoncé ko waaye tamit daal ut ci saafara loolu la Ousmane xam xamle. mooy xale yi nga xamante ni ñu ngi leen di gis ci mbedd mi heure bu nekk ñu ngi ci mbedd mi loolu je crois que suñu ñëwee dañoo bëgg am jàmm ëllëg te jël suñu doom yi sànni leen ci mbedd mi. dans l'indifférence totale damay jàpp ni dañuy nax suñu bopp parce que xale yi nekk ci mbedd mi. ëllëg ñoom ñooy màgg ñooy nekkaat ci mbedd mi di dal ci kaw nit ñi parce que tout simplement amuñu instruction amuñu éducation donc suñu bëggee waajal suñu jeunesse ëllëg léegi la ñuy commencé tàggat leen ñëpp nag seen loxo ngi ci suñu sukkandikoo ci ki jiite case des tout fii ci Thiès mu jàpp daal faw ñuy dellu ci yar gi Aminata Ndongo xale yi pour aar leen responsabilité yi dafa partagé pour aar leen ñun ñi ngi ci ñi ngi bay suñu waar fi ñu wàll wi ñu féete ñu fexe inculquer leen yi ñuy wax valeur u valeur bonté valeur altruisme altruisme mooy li nga xam ne nii ngay jiital toujours mbégu nit defe naa ni loolu gage la boo xamante ni nii dinañu sécuriser ñu indil jàmm. ñu ngi ci kàddu yooyu lee ci bës bi nga xamante ne dañ ko jagleel xale yi te coordination régionale petite enfance amal ko lëkkaloo ceek ñi nga xamante ne moo di académie de professeur pour la paix mondiale Pierre Claver Puy Thiès Zik FM. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew ñu dooree ko ca Niger ak juróom benni officier yi nga xamante ne rek dañ leen a radié ci armée bi mu lu ni mel nag mu ngi jógee ci benn note boo xamante ne chef d'état-major des armées moo ko dëggal document bi nag di fësal ni ay faute grave ak lourde yoo xamante ne jàpp na ni yooyu les officiers dañ ko def tribunal militaire bi nag li mu leen di tuumaal mooy rek dañu laale ci benn tentative euh, coup d'état boo xamante ne ñu ngi ko doon waajal ci fanweeri fan jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars atum 2021 di veyu njiitu réew bu bees bi nga xamante ni moo di Mohamed Bazoum conseil de sécurité bu ONU moom nag nakarlu na ba fu mu mën a yem faatub Euh, ci fukki fan ak benn ci weeru mai bi journaliste wala taskatu xibaar bi di Chirine euh, ak lem di américano palestinienne ak gaañu wala sax am ay gaañu gaañu bi nga xamante ne journaliste beneen am na ko euh, ci ville bu Cisjordanie ci Jénine neel benn déclaration boo xamante ne ñoom ñëpp ñoo si déggoo fësal ko suñu sikkandiku ci ñoom initié États-Unis nag moo ko sos waaye nag mu di lu raar boo xamante ne rek dañuy am Euh, taxawaay boo xamante ne dañ ci euh, déggoo conseil euh, de sécurité ci mbir boo xamante ne rek dafa ñeel Israël ñuy sàkku nag enquête nu mu gën a gaawee boo xamante ne rek day leeral mbir te amul par parlo ci faatu pogogule ñuy fësal ni itam jar na euh, ñu garantir li nga xamante ne rek moo di responsabilité wu ki nga xamante ne rek moo def jëf joojule wala ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci ginnaaw ñu jeexal ca Finlande mi nga xamante ne ci jamono ji mu doon waajal rek annoncé li nga xamante ne moo di candidature ma ne day dugg ca euh, OTAN Russie moom nag jël na ndogalu suspendre maanaam daal dakkal ay livraison au courant am ci boobule réew nekk ci euh, bët gànnaar bi waaye nag Helsinki moom ci boppam moom euh, fësal na ni mën na ci passé maanaam daal du ko wàññi dara waaye nag euh, mën nañ jàpp ni robinet bi nag coupé nañ ko euh, tey jile ci fukki fan ak ñeent ci weeru mai kon Finlande du jotati li nga xamante ni moo di livraison courant boo xamante ni day jugee fi nga xamante ni moo di réewu Russie huit heures quarante neuf minutes foofu nag la ñuy ndax keppe xibaar yi Safietou Ba nekkoon ci micro bi Chimère Diop ci xarale gi jaa ngeen jëf ñu bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme première radio urbaine du Sénégal jàmm ak jàmm.